asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur u Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag bu ngeen gisee ki ñu ki ñu toogal defe naa ne yaakaar naa du ku ñuy laaj wa wala ku ñu naan kii kan la parce que defe naa ne ñëpp xam nañ ko à travers les images moo xam ci télévision yi la wala boog ci kàddoom ci rajo yi ci Sud FM 2STV ba ci TFM wala partout sax laay wax muy alaaji Papa Dieng di koo xam ne li olof yi di wax rek ku bundoon ni tama fa ñu tëggale ñaari boor parce que li tax mooy sportu Sénégal xam nañ ko ci mais xam nañ ko sax ci lépp lu maanaam loo xam ne luy tax Sénégal jëm kanam la ci kàddoom ci liggéeyam ci jëfam tey nag waa Equivox su ñëw seet si ko fas ne seq moom waxtaan li waral waxtaan wi nag dafa am lu waa Vox Arena def ndax Vox Arena benn label la bu nekk ci biir Equivox label boo xam ne day def production ñëw nag ren tëgg ay làmb làmb yooyu ñu tëgg nag ñu tànn ci ñaari xale yoo xam ne defe naa ne tamit monde làmb yëpp xam nañ leen muy Maama Lamine bu Lamsaar nekk ak ñoom Siteu nekk ak ñoom Père Max Mbargane ñu boole ko Garga 2 mu nekk parcelle nekk ak ñoom Papa Sow jàmbaar Wrestling Academy ñaari xale yooyu la ñu boole jël drapeau ba nag fas ci yéene delloo njukkal kii ngeen kii ma leen wax léegi muy suñu papa di suñu tonton di suñu idole di alaaji Papa Dieng defe naa ne nag bu ñu koy delloo njukkal wala ñu koy sargal defe naa tey ci monde làmb wala ci sportu Sénégal maanaam fu ñu ko sargalee ci Sénégal rek kenn du ko dégg ne warata am loolu mooy mooy li nga xam ne moo am tey euh, ñu lay nuyu di lay ziar Euh, Alaaji Papa Dieng. maa ngi lay fay. di la mm-hmm. Mm-hmm. wax ne ñu ngi am contentement ci dal bi ñu dalal tey sa kër waaye tamit du ñu mën a avancer ci nuyu suñu xarit di sa doom di Youssou Dieng di ko ñaanal jàmm moom tamit di la wax ne tey euh, ginnaaw boo nuyoo sénégalais yi ma doog a ñëw nag ak yow ci sama question bu njëkk. waaw maa ngi nuyu téléspectateurs yi. di mm-hmm. nuyu sénégalais yëpp ñu nekk fii ak ñu nekk à l'extérieur. di leen ñaanal jàmm ci feebar bi nga xam ni moo am. te arrêté maanaam activité yëpp ci addina bi yëpp. ñu teel ci génn pour làmb ji reprendre parce que fu mu nekk xam nga léegi làmb ji xamaguñu kañ lay tijji. dëgg la ndax ñu ngi jàmbat mbër yi ñu ngi daja di waxtaan. Mhm. promoteurs yaa ngi jàmbat ñi nga xam ne ñoom lañ dénk làmb yi ñu ngi jàmbat amateurs yaa ngi jàmbat na léegi. Mhm. waaye xamaguñu kañ la làmb ji di tijji te it war na tijji ndax tamit ñi nga xam ni dañuy bëre. Mhm. làmb ji mooy seen métier. dëgg la xam nga ku toog lu mat fukki weer liggéeyuloo dafay am problème donc ñu ngi ñaan daal ak mesure barrières yi ak tamit euh, li nga xam ne dañ ko laaj ci wàllu nekkandoo ak tamit euh, pratique sport bi lépp ñu teg ko ci yoon pour làmb ji mën a tijji quand même que ak yeneen discipline sportive yëpp yi nekk ci Sénégal. am na solo loolu am na solo message boobu am na solo déjà mais Alaaji Papa Dieng téléspectateur Equivox yi wala monde bi ñu ci bëri tey bëgg nañu xam kan mooy Alaaji Papa Dieng. waaw Alaaji Papa Dieng <laughs> fii la dëkk Sénégal fii la juddoo après jàng fi tamit def euh, sport nag très ndax ñi nga xam ne ñu yoroon sport bi à l'époque sumay xarit la ñu woon quoi ñu ko dirigé woon ay ñoom Lamine Diack ay ñoom Mawade ñu dugal ma ci sport bi ma def ay stage entraîneur football après nekk entraîneur junior union sportive de Gorée après jóge fa nekk membre comité directeur après nekk directeur sportif mhm. entre temps nag ma ay xarit yoo xam ni mhm. dañuy ubbi rajo ku ci mel ni ay ñoom Babacar Touré nen Nenne mhm. ancien ministre de la modernisation secrétaire général la du gouvernement di sama cousin di suma xarit présenté ma ko mu gis ma daal ni ma yow daal il faut nga ñëw liggéey ci rajo bi parce que da nga am ay aptitude communicationnelle loolu moo ma yóbbu Sud FM depuis 94 ma nekk fa entre temps ci làmb ji tamit euh, ma ci yëngatu ndax dama daan ànd ak Mbaye Guèye à l'époque bi muy bëri nekkoon ci staffam ndax staff bi tamit suma benn mag bu tudd Umar Ba ñu ko daan wax Chessman moom mu ci dugaloon may ànd ak Mbaye fu nekk di ko présenté nit ñi di ko dugal maanaam ci millier bi bu finalement mu nekk champion après bi mu fa jógee rakkam ñëw mais bi rakk ji ñëwee tamit wàññi woon naa samay activité jàppale naa Moustapha Gueye tuuti rek au début mais mu doonee champion quand ak liggéey bi muy liggéey ma xaw a retiré wu nag nekk Sud FM. Mhm. entre temps ma daje ak euh, Bekay Mbaye ci sport bi ci làmb ji. Mhm. ñu commencé di liggéey ensemble. 2STV mhm. ak TFM donc je crois que sama parcours sportif ci wàllu. télévision ak ci wàllu rajo noonu la. noonu la deme daal. mais am na lu ma bëggoon a laaj tuuti ci côté sport bi rawatina football bi. ndax jot nga football wala bi ngay wala bu fekkee jot nga football da nga newoon ci club wala ci benn ASC wala yu mel. non non non dama football dama football dama football ci foyer France Sénégal. moo def fusion ak Espoir de Dakar ñu tudd Jaraaf. mais junior rek laa joué parce que dama def équipe junior rek suñu papa ni ma il faut nga dem armée pour am formation xam nga armée dafa am solo ndax moo lay jox. formation bu solide dans la épreuve bu mun a dajal rek du duñ ko mën a surmonter mhm. bi ma fa yóbbu sax man comprendre mu woon mais bi ma defee armée ba pare laa xam li tax mu yóbbu ma fa donc ma def armée def fa dix-huit mois groupement parachutiste ginnaaw bi ma jógee Bango mais avant may dem football naa foyer France Sénégal bi ñuy ubbi stade de ba Diop premier match bañ fa joué ñun ñoo ko joué ñun nag junior foyer ak junior Wakam mhm. enlevé de rideau Sénégal Russie match international bu amoon amical. Mm-hmm. bon ba ñu joué ñun ak wakaam ñu gagné leen 2-0. man maa dugal premier bi bi sur penalty. Mm-hmm. bon loolu moo tax ñu naan man maa jëkk dugal foofu bi mm-hmm. de manière officielle. ok stade Demba Diop. Euh, foo ay France Sénégal boobu dañ koy faral di déglu bëri nga di ko tudd wala ñeneen di ko dé di ko tudd. foo ay France Sénégal mooy lan maanaam lan club la woon wala France ak Sénégal dañ ko seqoon wala. non club la woon bu tudd foyer France Sénégal xam nga à l'époque nag français yi ñoo ñu colonisé woon ñu ngi am indépendance en 1960 bon foyer France Sénégal daf doon ay sénégalais yoo xam ni ñu ci bëri dañ nekkoon France di jàng ñibbisi. ok nekk ci sport bi ñu ràññee leen te boobu tamit France moo dirigé sport sénégalais bi moo di sport moo dirigeoon sax sport Afrique occidentale française bon te xam nga Sénégal moo daan capital bi. waaw gouverneur général bi fi la dëkkoon fi palais de la république nekk fi président de la république nekk tey fi la gouverneur nekkoon. ok donc Sénégal moo ŋànkoon maanaam Afrique lu ci bari fii dañ ko daan diriger. Mhm. dirigeant sénégalais yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñoo ko daan diriger ku ci mel ni Maguette Diack. Mhm. Magu Lamine Diack moo doon premier président fédération bi. Mhm. boo compétition africaine yi fii lañ ko daan defee. final bi fii lañ ko daan jouer. à Dakar ci présidence du gouverneur euh, bu AEF donc à l'époque sport bi diggante France la woon ak Sénégal ndax France ñoo jëkk initier sport bi fii ñoom ñu doon diriger et puis ñoo amoon ay moyens tamit ak ay stade parce que ñun xam ñun amuñu sax ay stade ci terrain nii lañ daan jouer champ de course mais Europe moom yàgg na am ay terrain gazonné ndax yàgg nañu football. am ay sénégalais yoo xam ne dañ fa dem di fa jouer yàgg na depuis très très longtemps ñu mel ni ay ñoom Libas Diop ay ñoom euh, Mame Abdou Sène bari nañ. bari nañ daal ak tamit euh, Wade Babadi mooy premier CNF peut-être mhm. après ci la ñoom Sidibé ak ñoom Petit Tall sans intellectuel yi nga xam ne nga nekkoon foofu di jàng ay ñoom Lamine Diack ay ñoom Habib caam ay ñoom Thiam Papa ñu nekkoon foofu di jàng nekk ci université yi mais doon def ay compétition française tamit ñu ràññee leen ci nekk ay champion de France nekk ay recordman ak ñoom Abdou Seye nekk champion nekk médaille olympique ndax Jeux de Rome boobu amaguñu indépendance mi ngi daw ci couleur française donc mooy premier sénégalais bi nga xam ni gagné na ci ci ci ci Jeux olympiques. ok mais nag comme que boobu ci Tour France la ko gagné. moo tax duñ koy wax. duñ koy wax mais en fait du jàbb. Mm-hmm. Abdou Seye la. Abdou boobu ci couleur française la du couleur sénégalaise. contrairement à jàbba en 88 bi nga xam ne ci couleur sénégalaise yi la defee Jeux olympiques. Mm-hmm. yow mi ngi foot ban euh, kii nga doon foot ban poste nga doon foot. milieu de terrain. naa joué milieu de terrain parfois mu joué avant bu ñu amee ay problème en défense mu dem jouer ji arrêt central en tout cas daal ci ci ligne verticale bi la la daan jouer soit milieu de terrain wala avant centre mhm. wala arrêt central. arrière central ok am na solo léegi su mu ñëwee tey comme club yooyu ko wala wax ni yàgg na yaakaar na dafa na avant indépendance la. est ce que amoon non non après mhm. est ce que daan nañ leen fay comme tey ni ñu gisee jour yi ñu di leen fay amee leen contrat di leen fay ay salaire. non non non boobu professionnalisme amul professionnalisme nga am en 2009. boobu club yi ay amateurs la ñu woon mais xam nga c' nga jouer surtout ci équipe yooyu nga xam ne dañu amoon. tour et puis encore jouer fa yombul woon pour nga jouer fa c'était difficile dañ doon def ay test dañ daan jël les meilleurs footballeurs pour ñu jouer fa d'ailleurs ña fa jouer ñëpp continuer nekk nañ finalement ay internationaux mais man comme je te dis carrière junior rek laa def après dama bàyyi dem armée ñëw nekk yeneen activité quoi surtout commercial commercial dama daan dem Europe di dem di jëndi matériel ak marchandise ñëw di ko jaay di dem di ñëw donc aw mon temps football boobu maa ngi def navette entre hmm. Dakar Paris Euh, Espagne euh, Maroc dama daan dem Las Palmas di dem Rabat di dem Casablanca di dem Paris donc ci milieu commercial bi laa nekkoon. ci nga nekkoon daal am na solo léegi damay jóge ci football bi ñëw ci làmb ji parce que ñu bëri xam nañ la ci football waaye tamit ñu bëri xam nañ la ci làmb rawatina ku mel ni man mi làmb buñ ko waxee buñ la ci tuddee nit ñi dañuy seen xel day dem ci Fass ak Mbaye Guèye sa diggante ak Mbaye Guèye am na tur wax léegi lan moo indi sa diggante ak Mbaye Guèye ak nu ngeen doon ànd yéen ñaar. xam nga Mbaye Guèye dafa nekkoon champion à l'époque en 69. Mhm. fekk mu jël drapeau bi ci Robert bi fi nekkoon champion. mais am benn mag boo xam ne mi ngi dëkkoon Gueule Tapée daf ma xamoon parce que boobu dama daan dem souvent Gueule Tapée dama fa xarit bu tudd Limamou Diop bu daan joué bu daan joué France Sénégal ñoo defandoo équipe junior ak Louis Gomis bon mën nag dem yàgg bëgg làmb parce que ñoom Fodé Doussouba ay ñoom euh, Falay Balde rue neuf la ñu dëkkoon man maa ngi dëkkoon rue quinze Medina Medina te bu ñu daan dem làmb ji ñoom dañ daan tëgg di fecc ba làmb ji wuti naak léegi ñuy dugg ay oto yooyu ñoom daaw ñu def loolu ñoom dañ daan dox mbiru jëkk dañ daan dox di bàkku ngemb bàkku ñu topp leen di leen tëggal ñu dem làmb ji xam nga kooku dafay attiré. bien sûr xale yi nekk ci mbedd mi di football ak di fo. da leen di topp. Mhm. da leen topp buntu làmb ji bu ñu mënee dugg ça bu ñu mënul dugg lijjanti. lijjanti waaw après ñu ñibbisi. ok bon ma yàgg nag bëgg a làmb. di mhm. seetaan ni làmb. di seetaan ni ay ñoom Treize Ndir ay ñoom Cheikh Mbaba. ay ñoom Amadou Mbeng ay Zazu Ndiaye sama Zazu Ndiaye moo daan sama mbër. Zazu Ndiaye Kër Degen Kër Degen. Mhm. ak euh, ñoom euh, ay ñoom Barabara. champion yu bëri yooyu nga xam ni boobu champion yi dañu bëri trop ay mbër yu mag a mag a mag ma daan dem di seetaan yi ba maa ngi farlu nag temps yi Cheikh Mbaba Cheikh Mbaba mbër la bu dëkkoon Mbuur boo xam ni dafa rafet trop xes pecc egg ca kaw na naqaree daan doon champion bu mag a mag mhm. man moom laa faraloon mais bi ko treize daanee jël ci moom drapeau bi mu metti ma trop ma après treize di bi rek zazu ma faral zazu ah, dimanche bi ko bara bara jëlee ci moom drapeau bi treize moo jël ci moom drapeau bi barabara ñëw jël drapeau bi ci treize. war a bëre ak Zazu. man ma faral Zazu Zazu dóor ko mu daanu mu jël ci moom drapeau bi. mais Zazu tamit drapeau bi yàggul ci moom parce que temps drapeau bi du yàgg. yàgg bu bëree trois ou quatre fois dañ koy jëlee ndax boobu mbër yi dañuy yem niveau. Mhm. bi ñu jëlee ci Zazu drapeau bi mais ma continuer di ko faral. di ko faral di ko faral di ko faral ba finalement après mbir yi ñëw ma xawoon nag bàyyi un certain moment làmb ji di dem ci football bi parce que boobu Gorée laa te boobu tamit Gorée daf daan jouer grand rôle ma lay wax ko lu mat trois fois championnat bi mu jël ko trois fois te sorewul ñu woon du trois lañ dëkkoon donc bu ñu nekkee xale dañ fa daan dem à certain moment nag bi Mbaye Guèye nag jëlee drapeau bi parce que boobu euh, mbiru dakaar yi bariwuloon ay champion hmm. maam Gorgé fi nekkoon bi mbay Guèye ñëwee nag ba ñëwaat jël drapeau bi nag ci laa commencé dem ci làmb ji suma mag bi ma lay wax bu tudd Umar Ba. Umar Ba peut-être xam ne amoon na ay relation ak personnalité yi nekkoon ci dëkk bi mu buggoon tamit mbéy géey am ñu ko xam am ñu ko soutenir mu ñëw ne ma booy il faut ma booy Lang Mbaye Guèye pour nga présenter ko sa xarit ci wàllu personnalité pour ñu jàppale ko ko koy jàppale mm. te Robert bi koy moom la ñu faral président de la république séeréer la mm-hmm. te Dakar amuñu mbër te comme que Lamine Diack mooy maire Dakar sa xarit la mm-hmm. ma bëggoon ñu dem fa nga présenter ko Mbaye Guèye pour mu jàppale ko parce que tamit champion bu toll ni moom bu amul jàpp dafay du sotti du sotti dëgg donc ma dem seeti Lamine Lamine ne ma mais man Pape Dieng non wax na dëgg mën na ko me d'accord Robert nga faral mais Robert dëkku fii <laughs> te Mbaye moo dëkk Dakar. Dakar dëgg te on ne sait jamais d'abord kilifa nga fi te Mbaye am na mbooloo. Hmm. nga collaborer moom du la yàqal dara dina la jariñ di nga ko jariñ mu ne ma tu as raison. finalement ma fexe ba ñu xaritoo ñoom ñaar. Hmm. mu souvenir Mbaye Guèye nag Mbaye nag nekkoon champion bu mag a mag a mag. dëgg la reñu fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg hmm. ndax euh, ah ñoom Modou Lo am tey ak ay ñoom Balla Gaye moom lépp daf ko dajale woon. nekkoon champion bu mag a mag mooy magu Moustapha Guèye. Mhm. bon loolu ci laa ko booleeg ñoom Mbaye Guèye ak tamit personnalité yi dëkk Dakar coutumière. Mhm. ak ñaankat yi même religieuse. am na ay xaritu sëriñ yoo xam ni yu mag yoo xam ni dañ ko faraloon. du ma mën tudd seen tur ndax xam nga ay. chef religieux la mhm. daan jàppale bu amee combat. def la ci waar ñaanal ko. ba bu demee am ndam donc loolu moom booleeg Mbaye Guèye. loolu Mbaye Guèye bàyyi tamit euh, rakk ji Moustapha Guèye ñu recommandé ko pour mu ñëw seet si moom. Mhm. parce que dañ ko ni comme que Mbaye Guèye Pape Dieng moo ko doon moo ko ci yoon demal ci mu ñëw seet si ma Moustapha Guèye ñu seet si ma. ma mhm. boole kook ñi nga xam ne ay supporters yu mbay Guèye lañ moom tamit ñu koy jàppale. Mhm. ba mu def carrière am ba nekk champion ba finalement mu bàyyi donc. bi Mbaye Guèye bàyyee daal je me suis un peu de l'écurie Mm-hmm. waaw loolu moom leer na mu mel ni foofu tamit macha allah passage bi am na solo trop te tënk na ko léegi tey kon ku mel noonu ci sportu Sénégal ci football ba ci làmb ja bu waa Vox Arena xëyee tey ah ne dañ lay delloo njukkal ñu ci nuyu la DG Alioune Badara juuf dañ lay sargal jël drapeau bu toll ni Mama Lamine ak Garga dë di la ko delloo njukkal loolu lan la def ci yow. sa fait toujours plaisir parce que xam nga Papa Abdou tudde woon na ma fi làmb. Abdou Fall waaw. donc xam nga man li ngeen di seetaan ak li ngeen di wax ci man sax man dafa may jaaxal parce que man su ma xasee bu def émission yenn saa yi sax ma ko seetaan dëgg su ma defee émission rajo tamit yenn saa yi du ko sax déglu dëgg la mais yéen ñu koy seetaan ak yéen ñu koy déglu yéen a mu ci ëpp gis-gis mhm. parce que man su ma defee émission làmb rarement sax laa koy seetaan mhm. dañ may nettali mhm. donc ba leen demee peut-être ba gis loolu am na fa leen ko teg bon comprendre naa bu baax li ngeen def di leen ci ndax nit dina gis dara te du ko apprécier. dëgg la le fait ngeen gis loolu ba remarqué ko ba apprécier ko damay dox ci mbedd mi sax ñu may wax naan ma reportage yi ngay def ci football beeg. Ah, reportage yi ngay def ci làmb ji. Ah, mais nee naa la émission bu mu def. altine talaata fàtte naa ko. dëgg la ndax émission yi dafay bari. ay bari ba 94 ba léegi nga nekk. nga nekk ci <laughs> ah. chaque lundi nga def émission ñu koy teg le <laughs> mardi du ko teg le dimanche. dafay bari. dëgg la su fekkee émission bu am ma déglu ko dafay dem ba finalement daf may donc loolu moo tax am na émission yu bari yoo xam ne dañu may nettali mu demee même combat yi. Mhm. yenn saa yi kenn ñëw fii ni ma waxoon nga nangam ak nangam avant combat bi waxoon nga nangam wala ma dajeeg mbëri ah. waxoon keroog wala ma dajeeg mu Lo xam nga. Uh-huh. ñuy wax ak man loo xam ne man fàtte naa ko sax. Uh-huh. ci ay seen combat yoo xam ne dañ koy bëree mu am lu ma ci wax avant combat bi. Uh-huh. en général peut-être dafay dafay tombé. day tombé loolu nag dafay tombé rek. puisque nit mënul xam li xew ëllëg. dëgg la da ngay analyser rek te analyse bi tamit dafa am fu muy yem. quatre vingt quatre vingt pour cent peut-être ou quatre vingt dix pour cent. dinaa marche boo xam ne ko kenn du ko xam yàlla rek moo ko xam. dëgg la su làmb ji ni muy mujjee ak kii daan moom. c'est-à-dire di nga mën a wax. ki am avantage par rapport ak ki ci des ci wàllu force yi ak ci wàllu faiblesse yi ku ci nekk fi nga rawee sa moroom te nag loolu tamit du li am ci bés bi ndax làmb moom bés ba lu nekk mën na am ndax ki war a daan bu defee li nga xam ni dafa tax mu war a daanu dafay daanu dëgg loolu ki war a daanu tamit bu fekkee dafa def li nga xam ni dafa war a tax mu daan day daan donc mën nga ma daan dimanche ñu bëri altine ma daan la dëgg la donc li tax mëneel di ci am mooy ngeen bëri ngeen bëri ndax nit bëri naa ba tàyyi ak nit mën mhm. ko mu daan ko nit bëri koo xam ni moo la man nga daan ko ku ci sport yëpp la ci sport yëpp mais kenn du xam kañ la kenn du xam kañ donc loolu moo tax def yenn pronostic yi te mbaa amul c'est rare man duma ko def mhm. dinaa wax force et faiblesse mhm. mais joxe pronostic moom rarement laa koy def dinaa wax nag képp chance képp chance waaw képp chance c'est-à-dire ki nga xam ne su ma doon teg ci moom laay teg ndax tamit loolu am na mais pas forcément que li ngay wax mooy am donc bu amee rek yàlla moo la suturaal yàlla la suturaal yàlla na far ñu gën a gudd 94 la wax ba léegi yàlla na fi gën a yàgg gën di ñu jox ay leçons parce que ñu ñëpp dañuy jëlee ci ay leçons macha allah yaa dégg léegi ñaari mbër yi defe naa xam nga Garga 2 xam nga Mama Lamine hmm, bu baax ñaari mbër yooyu seen bëre parce que ñu bëri dañuy wax ne combat boobu ren bokk na ci combat yi nga xam ne bi saison ubbee ak jàmm a mag la bokk waaw waaw hmm. yi la dëgg la ci ñoom ñaar ñuy daje ku ci nekk li nga man par rapport ak li ci des combat boobu mën na dàq sax combat Balla Gaye ak Bombardier hmm. ah bien sûr mën na dàq combat Eumeu Sène ak Lac de Guiers hmm. gisoo combat yu mag yi yi ci nit ñi di dem ba làmb ji bu ñuy ñibbi yi dëgg ndax am waaw loolu des fois gis nga Bombardier ak Eumeu Sène gis nga bëri ba nañ ko yaakaare woon amul dëgg la gis nga tamit Balla Gaye ak euh, Modou ni ñu yaakaaroon bëri noonu lay demee amul mhm. ñu defoon li bàll di bëri Modou Lo dina bëri lu ñu toll mais gis nga ab demul noonu mhm. gis nga tamit Eumeu euh, mhm. seen ak Modou seen bërëb bu lañ fa doon séntu amul ndax amateurs bu ñuy dem fa am la ñuy séntu maanaam bëri bu ñu ko gisul rek déception la dëgg la ndax dafa am ñoo xam ne farlu ñu kenn mhm. am ñoo xam ne dañu far am ñoo xam ne làmb la ñu faral am ñoo xam ne mbër la ñu faral mhm. ñu faral mbër ñoom dañuy kontaan mais ñu faral làmb mhm. la ñuy seeti bu ñu ko gisul duñu kontaan duñu kontaan duñu kontaan ñaari xale yooyu am na ñuy wax ne Mama Lamine ci côté bëree moo ëpp avantage ñeen ñi ne déeréet parce que euh, kële boog gargateur moo ëpp avantage ci bëre ñeen ñi ne déeréet parce que Mama Lamine mbër muy jëli la day rañaan xam nga loolu mooy li ma la wax rek ñooñu warul far soo faree dootu mën a atte dëgg la ndax sa xol ngay topp ak sa bëgg-bëgg. sa mhm. n'a rien à avec la réalité. Mhm. ñaari xale lañu yoo xam ni seen bëri il faut mu metti mhm. ndax bëri xale mooy gën a metti bëri mag. li mag di calculer xale du ko calculer. xale dafay defe ne lu taxaw ci kanamam. moo ko mën moo ko mën. mag day calculer di seet di moytu ndax dafa am expérience. dëgg la fi mu jaar ak li ko dal ci diggante bi. ak jël yi nga xam ni daanu na ci yooyu daf koy servir de leçon ba buy bëriwaat xelam ah. dafay nekk ci combat bi mu mujj bëri ak na mu demee. Uh-huh. wute nag xale yi. gis nga xale ni ñuy bëri mag ñi uh-huh. xale yi lu taxaw seen kanam dañ koy falaxe. Mama Lamine seetaan nga kombaam. seetaan naa si kombaam ba tey. noo ko gisee moom Mama Lamine. non comme mbër tempérament waaw ak fuggam Mm-hmm. ak détermination parce que yooyu mooy sport sport dafa am mm-hmm. détermination engagement ak fugg mm-hmm. te xam nga yooyu daf ko am xam nga yooyu dafa am importance booy bëri wane ni tey da nga ñëw pour am ndam dara du la tere am ndam nga indi esprit boobu ci làmb ji même bu fekkee amoon ndam ñi nga xam ne dañuy seetaan dañuy kontaan parce que amateur dina seetaan làmb ba pare sax mbër daanu am déception mais moom mu am mbégte. mu am mu bëree. nu mu bëree xam ne ku bëree di nga daanu. Mhm. da ngay fexe kay ba jël yi néew. waaw victoire yi bëri. Mhm. mais ku yàgg di bëri il faut nga daanu. faw nga daanu garga dëy itam seetaan nga bëri. non bien sûr ma tay man xale yi lay gën seetaan mag ñi sax u làmb ji man mag mhm. rek mooy tax. mais li muy seetlu ci combat xale yi sax du ma ko seetlu moo ma dàqal bëree mooy li ma la expliqué. amul calcul ok amul xam nga mag ñi dañuy calculer xam nga mag ñi dañuy dem ba en certain âge da ngay rus sax daanu. waaw rus daanu. parce que da ngay am doom da mag la. waaw. du la neex sax. déedéet bi dafa ko def métier mais boo sañoon da nga teel a arrêté. parce que njaboot gi. parce que xale yi bu ñu demee ba màgg boo mm. daanoo rek dafay dafay mel ni. waaw <laughs> day mel ci kër gi man meen saa yi damay génn. Mm-hmm. dem seetaan ni làmb ñëw su ma ñëwee xëy na mbër bi ma faral su ma ñëwee damay fekk sama waa kër tëdd. ndax ñoom defet bi moo leen di jàpp ba ñu defee ne man dina ma jàpp man dépassé naa defet <laughs> waaw vraiment defet dootuma naqareeti <laughs> waaw la nga daal dépassé naa ko lu mu métti métti ah. mhm. euh, mhm. def ci pronostic sax wax loo neex la tey ku ci nekk am nga qualité boo xam ne war nga mën a daan sama rom ndax du combat bu ndaw déedéet bu mag a mag la mhm. loolu laa loolu moo tax ma ne la ki far du mën àtte. ki far du mën a àtte. waaw ndax dafa am nu muy àtte. dëgg la xam nga. Mhm. ki bëggit du mën àtte. Mhm. ak ki yërëm. Mhm. yooyu yëpp yooyu ñu mën àtte. dëgg lii àtte. mooy ki nga xam ne faralul kenn. def analyse bu sérieuse mais làmb moom. surtout ñaari xale yu mel noonu bu ñuy bëri combat bi toll na foo xam ni. ku ci nekk dama la booy dem dangay ngay def ni yaay daan kenn xalaatul ni da ngay dem pour daanu pour daanu la combat am na solo tey foofu ñu ñu ñu kii fi maanaam ban appel ngay lancé sa ay nit sa ay soppe ak waa réew mi parce que comme li nga wax rek lii du guléet waaye tey ñi ko def xëy na dañu dee nit yoo xam ne label bu bees la di Vox Arena ñëw def lu mel ni tey ban appel ngay lancé ñi nga xam ne ñoom ñooy monde sportif appel bi lancé rek mooy sportif yi nga xam ni yëpp xam naa leen xam nañ ma te ñuy sportif te mu am bés boo xam ni dañ ma ko tuddee te bu ñu leen tuddee bés damay ñëw taxaw ci mhm. ma def leen appel tout le monde mhm. bu ñu xaar sax leen di woo téléphone wala ma leen di envoyé ay message mhm. bu ñu déggee mbir mi rek na ñu ñëw ndax tamit bés la boo xam ni man tudde ngeen ma ko mais dama ko bokk man kenn dëgg la ñi suma xarit sumay àndandoo sumay am di jàmm sumay nit ak sumay soppe et tout ça ñoom ñëpp maa leen di woo ñu ñëw bis bëgg naa bu bés ba jotee Euh, mu doon bés bu mag bañ doon bés bu ndaw mhm. bés boo xam ni ñoo ña fay nekk du ñu bari bés boo xam ni ña fay nekk dañuy néew déedéet dama bëgg mu nekk bés bu mag a mag ndax lu tal noonu bu lu ko nit tuddee pour mm-hmm. njukkal la mm-hmm. am nga cër boo xam ne tamit war nga ko delloo mm-hmm. fexe bu mobiliser say xarit ak say nit ak say am di jàmm say mboq surtout say mbokk ñu ñëw taxaw ci bës ba pour wane ni ngeen tuddee bés bi suñu nit la te bu leen ko tuddee bés ñun ngeen ko tuddee donc dañuy ñëw pour jàpp ci bés bi am na solo loolu leer na